Ousmane Ian Cham, président de l'Organisation nationale de gestion des activités de masse. gestion pandémie bi ni mu ko que euh, Sénégal jotna ci def ay que constat bi pandémie bi de mu sonal Sénégal euh, mesures yi état bi population bi ko malgré euh, conséquences économiques yu metti metti metti nit ñi and nañ ci xex limité wu. un rebond bon état bi ñeu taxawat rappeler nit ñi alors nit ñi tam ko ci gis nañ affaire euh, geste ONCAV euh, renouveau mooy mooy moo jur moo jur tey ONGAM xam nga euh, mbir boo gis rek dafa am luy nekk ci ginnaaw ndax Wolof Njaay danaan lu yëngu li ko yëngal ko ëpp doole xam nga nawetaan dafa am loo xam ne dafa central ak lu mënti xew démocratie ci biir nawetaan dafa nekk dans ci échelle yëpp tey dama lay jox benn exemple ndaw ASC rek boo bëggee nekk président ASC rek il faut que nga dem ci assemblée générale ASC bi nga am majorité koñ bi wolula ñu ko assemblée générale bi nga président donc ce qui veut dire que que la démocratie bi di commencer nga que ci première instance yi la zone zone ay ASC yu délégué yu ASC yoni former le comité directeur de la zone comité directeur est tamit ñi fa pour nous installer un bureau pour faire le président pour nous déléguer au niveau du département c'est une assemblée générale et majorité bi moy décider lolu bo démé ba ci yenen niveau yi tamit non la légui nak bi ci renouvellement yi ñi mujj le cave. renouvellement principalement d'Anaka. Euh, dëkk yu bëri dafa amoon ay problème ci biir assemblée euh, générale yi nga xam ne moom lañ doon organiser parce que boobu am na groupe bu fi nekk boo xam ne bëggoon nañ toogaat te ñoom euh, forcément il faut que ñu jalgati parce que majorité bi perte nañ ko mooy groupe bu ñoom groupe bi fi nekk tey bi nga xam ne ñoom la ñu bàyyil cave, dirigé par le président Amadou Kane donc si je vous la un exemple ndaw à Dakar Dakar on était un comité directeur de 45 délégués L'Assemblée assemblée générale yi nga xam de ASC def nañ zone def nañu ba yónnee ay représentants ba ñu former le comité directeur ñu Nous l'assemblée assemblée générale la veille mon ci boppam Amadou Kane bi bokk ci le département de Dakar Nous day convoqué pour harmoniser convoqué pour ci siège il avait 13 délégués présents nous nous convoqués à la brioche dorée de, de Nous avions 33 délégués présents. Vous savez, la majorité pour l'air. Nous savons que nous avons élection le lendemain de euh, d'Afanara Tout bonnement, en tant que président ONCAV, nous avons dit à jour ajourné euh, l'Assemblée euh, générale ODECAV de Dakar. Sans aucune raison valable. Amu ci sax sañ parce que euh, euh, euh, dogal yu mel noonu tay mom bu fekkee ne da bu koy dafa mais amul dara lu il fallait que li am lu il fallait que li am parce que nous sommes la ñëkke bi mu ñëkke lolu ñun biñu nous générale ORCAV Nous mu def benen assemblée générale ORCAV ñu dajale département bi yépp ci benn salle def assemblée générale ki nga le ministre des sports nekk départemental des sports superviser réunion boobu mu jalgati réunion réunion bi organiser beneen réunion parallèle dem wool un comité directeur de l'ONCAV national Nous avons ne ñooñu seen mandat jeex def nañ assemblée de bilan jeex na ñi ngi xaar renouvellement ñu fal ñu bees ñi mu mandat mu dajale leen Dakar pour suspendre le président Babacar euh, Babacar Gueye bu pikin le président Ababacar Diakhaté bi nekkoon ORCAV de Dakar ak le président Ababacar li mu def ko di ko wax ci rajo ñëpp di ko dégg. ñu organiser suñu compétition di xëccoo benn kayit xëccoo benn kayit boobu nag indi coow lu bëree bëree bëree bëree bëree. waaye yàlla def na ci jàmm ba amul kenn ku ci gaañu à travers tout le Sénégal dañu dañu sonnoon pour pour jouer rek ci benn terrain nu boo xam ne ci ci digg àll bi la nekk pour un que suuf préfet rek autoriser la ko lu nekk lañ daan daj dañ daan daj façon répression bu nekk mais yàlla mi ngi ñu doon dimbali ba à chaque moment waaw mais xam nga légalité mooy lan mooy li ma la wax majorité bi am organisé en tant que président dans un comité directeur de 45 personnes en 45 jours nous suspendre 26 personnes pour une majorité Nous ñun mënuñoo gën légal maintenant nous avons la dañ ko doon réclamer ñom réclamer indi euh, euh, mu en termes de légalité parce que mën nga dem fenn kooku non je reconnaître ma la a reconnaître par exemple ci biir football bi ñun dem nañu assemblée générale ligue de Dakar assemblée générale ligue de Dakar le nawetaan était représenté ñu yónni suñu ndaw bi ñu demee ba fofu, ñoom it ñu yónni seen ndaw bi ñu demee ba Léopold Sédar Senghor ñi nga xam ne ñooy ñooy commission juridique bi yoroon assemblée bi avons ko présider daal di rejet daal di leen rejeter ñoom ñaar ñëpp mais bi reprogrammé assemblée générale bi parce que mujjul yegg dafa am kayit bo xam dafa wane né un comité benn comité d'urgence mo réunir pour wax ne ñom féké nañu assemblée générale ONCAV bële donc suñu boss bu demaatoon <laughs> dañ koy dañ koy rejeter. ils utilisaient leur leur leur connaissance bien sûr parce que euh, être président de l'ONCAV pendant 8 ans ou 7 ans, je ne sais pas, lolo, tu as des réseaux, tu as des Donc, euh, Donc vous étiez dans le système. Voilà, <laughs> mais c'est pour ça qu'on s'est bien défendu. Et, et, puis aussi, il y a le 10 000 nous, euh, à des moments donnés, on tassé nañ ak ay responsables yu yu commandement territorial bi jël seen responsabilité de dama des di jox damay jël autorisation ngeen jouer ay préfet yu ko def préfet yu ko ñëk def moom daf leen a woo téléphone man toog naa ak ay préfet ñoo xam ne nee nañ ma bi ñu ñu autorisé pour ñu jouer daf leen a woo téléphone donc pour vous dire que ne la pression elle venait de de de de de de de de, de beaucoup de côté mais ñun tamit <laughs> ci dëkk bi lañ dëkk te tamit li ñuy xeex dañ ko war a xeex parce que euh, su pour suñu njëriñu askan la ndax ndaw yi nga xam ne tey ñi ngi ci mouvement nawetaan bi dañoo bare.

Tout on est en train de regarder combien de billets on a, on, a vendu, nangam, nangam, nangam, nangam. Lolo motax nak ñun ñu détaché wu dem avec un nouvel élan. Nous tax ñu sport de euh, activité de masse parce que tout simplement, il n'y a pas que le football. Donc notre premier pas c'est la diversification des activités cest que les quart dinañ ba créer ay compétition amateur ci biir quartier yi ça sera du basket par exemple Il ah, y peut-être des compétitions de judo Nous yooyu diversifier l'aspect quartier ak l'aspect navetan l'aspect amateur le grand problème des ASC c'est l'argent les finances c'est une complication le président il n'y a sonn ku essayé Il a fait deux jours a fait deux ans commencé nga l'autre yaa ngi donc on est en train de réfléchir à ce que lepp lo xamne tay tey ASC bi ci structure mère bi la koy jëlé muy licence muy ay li ñuy wax frais de réaffiliation muy ay 25% euh, yi nga xamne bu saa yoo organisé dañ koy jël lolu yépp ñu bàyyil ko ASC ñun on va trouver des mécanismes de financement yo xamne dinañ mëna euh, baña jël lolu ci xaalis ce qui veut dire que tay dinañ lolu dina nek économie te dina leen rendre plus plus beaucoup plus autonome donc lolu lañu offrir à essayer. dans le cadre juridique l'administration le Sénégal dafa une loi loi associative fait un mandat de trois ans donc nous mënuñu di nous top un mandat olympique quatre ans comme ça se faisait donc nous avons des mandats de trois ans renouveler fa faire non tu fais deux mandats ren du ñu nawetaan non waaye bañ a jóge ci ONCAV yow déggoo ASC ASC yi bokk ci ñoom lu ñu wax demal nga laaj ASC yi ndax da ngeen di nawetaan moom moo la gën a xam ne kenn du nawetaan mais. da euh, ah mais boo demee demal nga laaj ko. <laughs> juste pour am yow mii nga xam ne peut être yaa ngi ci biir mouvement bi qu'est-ce qui explique. parce que dafa soxla réaffiliation yoyu pour wax né temps la toll loolu la soxla dafa signé ay convention dafa signé ay affaire engagé wu né man temps la toll <laughs> maintenant nit ñi bu ñu réaffilié wul <laughs> gars dañ ko né tolloo ni bu fekkee ne da nga dem signé ak kenn ku am plateforme de réaffiliation plateforme informatique nga que je suis 7000 ASC mu ñëw gis 1000 ASC donc yu dugg ci système bi réaffilié ça veut dire quoi ça veut dire que y a un problème looloo tax mu wër ci àddina bi ne peut-être ñu football mais c'est comme je dirais, moi peut-être lu mieux def euh, concerné wu ma man ko sax nous mënuñu rivaliser avec ONCAV ONCAV est ici depuis plus de 50 ans c'est une association qui euh, est est reconnue d'utilité publique n'est-ce pas euh, elle a des représentations partout Notre ambition mooy ñu fexe ba ASC yi sont ci Sénégal yëpp affilié ci ñun non xam nga <laughs> xam nga xam nga boo rival C'est daa mel ni dafa am loo niir xëccoo non

depuis trois ans nous sommes en activité dama vous jox un exemple nous étions présents dans huit régions lors de notre première assemblée générale euh, Dans bi de assemblée générale on était on avait 13 régions qui étaient représentées. nous avons commencé à nous tournons autour de 2.000 e. parce que ASC e euh, 4.500 aux alentours gars yi 7000 wax bon euh, euh, je sais pas euh, ay 4500 qui là. la bon la majorité est dans l'ONCAV ça c'est sûr pour le moment et comme ren qu'est-ce kenn nekkul fenn parce que ASC chaque année dañuy réaffilier je doute que ne ñëpp réaffilier comme nous le ko bëggee woon moo tax wax ji bëri peut-être ñu football peut-être ñu football. au niveau de la fédération sénégalaise de football mon bu jotee subvention bu joxee état euh, bu euh, équipe, ay équipes da liste équipes mais est-ce qu'on suivre nañ nawetaan hol, ndax subvention il ñu leen jox ñu koy jox amul amul boo les 5 ans wala 6 ans tu verras peut-être 1 milliard je dis un euh, un montant comme ça mais tu un awma ci idée parce que je ne suis pas mais amul benn ASC wala euh, en général ils n'ont pas pu bénéficier de de de cette aide là ku yor structure bu mel une ay structure nawetaan bu fekkee ne am nga certaine crédibilité ba pare am ASC yu ànd ak tu n'as aucun mal à avoir des accompagnants qui vont t'accompagner financièrement ak ay annonceurs si am nga crédibilité bi parce que nawetaan amoon na ko dañ ko perte nous avons ñu parce que structure yi dem nañ ba parce que lu ñu wax duñ ko def <laughs> ñi nga ne nous avons beaucoup de partenaires aujourd'hui qui sont dans le football et qui peuvent aider le mouvement et qui sont même prêts à le faire et c'est des partenaires internationaux donc pour mën a yóbbu pour mën a yóbbu structure bi fi ñu ko mën a yóbbu parce que gis nga tey boo xoolee nawetaan euh, am na fu mu doon yegg day am chaîne télé boppam nawetaan am na fu mu doon yegg day am chaîne rajo boppam nawetaan am na fu mu doon yegg day am sax ay marque yére boppam donc loolu yëpp tey euh, énergie la boo xam ne dafa nekk ni di taxawaalu mais kenn mënuñ ci teg loxo parce que système bi fi nekk la